bismillahi irrahmani irrahim haasihi marsiyatu cheikh mohammadul muntaxa nan sant yàlla tey gërëm buur yàlla mi ak i mbiram te sant Moustapha ak ñoñam ñi yor ndigal ci xarnu bi nan sant yàlla tey gërëm buur yàlla mi ak i mbiram te sant Moustapha ñoñam ñu yor ndigal ci xarnu bi alhamdulillahi alkarim buur yàlla rekk a jara أكبر مسيخنا الخديم كياس الدين حرنبي الحمد لله الكريم بور يالا رك جريم أكبر مسيخنا الخديم كياس الدين حرنبي may dellu ñaan si tul xadiim seex muntaxa ka jërëyeem yal nang fi yàgg dégg maam moo mboolem xarnu bi ibnul basiiri yaay xaliim yaa xam te xàmme doo yaa jararoy ne yaay xaliim yaa jara way xarnu bi cey sibtu jaara maala yeem ibnul basiiri du moroom sabaaya raw kullu xalim wóor na ñi woon ci xarnu bi nan ñaan ci sayidil muntaxa cey mbàkke yaay borom tuxa yow ku la sopp day te xeek du gisu tiis ci xarnu bi yàllaay borom kun fa yëkkoon mboolem ñi fi jiitu woon donnu nga mboot yanu yoroon yàgg la jiite xarnu bi ak taalu bee ma jara yeem sopp xadim la feese moom cey sibte xaadimul xadim jiitu nga mboolem xarnu bi ak taalu beema jërëyeem sopp xadim la feese moom cey sibte xaadimul xadim jiitu nga mboolem xarnu bi lewet ak yaatu nga jagoo muñ yaa ko yaa mën a boote yaa jagoo daaray junni xarnu bi Seex Muntaxa université nga naal ak guy Masalik Sénégal yaa ko matal fii Sénégal yaare yi may ci xarnu bi université nga naal ak guy masaalik Sénégal yaa ko matal fii Sénégal yaare yi may ci xarnu bi mboolem ku dib jullit na ñaan mbàkke yu fay rawub safaan buur yàlla moom lanuy dagaan mu am ngëneel ci xarnu bi mbàkke yu fay yaare yi may seex siidil muxtaar moo la ngoy jox la ndigal nga daldi wéy ba am ngërëm ci xarnu bi mbàkke yu fay yaare yi may Cheikh Sidi Muxtaar moo la ngoy jox la ndigal nga daldi wey ba am ngërëm ci xarnu bi am nga ngërëm ci muntaxaa lu ñépp seere cey taxaa ku mu gërëm nga am toxaa baatin batim na waa xarnu bi mbakke yu fay santal te gërëm sa yaari waay jur yi nga am moo la am nga ndam sak cant na xarnu bi yowmal xiyaam yal na la tabbal nu jannatu naxiim mbaaxul di mbaa daaru salaam njabooti xarnu bi mbaate nu dëkke xilliin أكون خم في كل حين فردوس فحند بين كل مريد خرن بي بكي فيلي ملوي كبرك خديم لا لوي ذيق تري لمين وي ngir bég ci yow ci xarnu bi feeñal nga sayqi muntaxa turwa ne woon fa barsaqa yaa doon mbar ma xaqa tuqa yéemaan nga gaay xarnu bi feeñal nga sayqi muntaxa turwa ne woon fa barsaqa yaa doon mbar ma xaqa tuqa yéemaan nga gaay xarnu bi xusnul maab nga yeesalaat kuñ fa julee nga tàbbi xaat firdawsi yaa nu noppalaat baaxe nga gaayi xarnu bi mboolem murid yi nañ dellu ñaan ci barke maamam lanu ñaan xaadim rasul noo ngi dagaan taxaana sax xarnu bi yaa bari jom te day ndam yaa rafet jëf yow ku la xam du tëkkale karaasi kem sopp nga bambam xarnu bi yaa bari jom te day ndam rafet jëf yow ku la xam du tëkkale karaasi kem sopp nga bambam xarnu bi Cheikh Mountakha juróom ñetteelu xalifa teral nga jaara xad wafa sibta xadimal Mustafa sellal nga gaayi xarnu bi Cheikh Mountakha ibnul Basir yaa leeralaat bi teeg yaara yi may mbàkke sa mboor rafet na leeral nga xarnu bi cheikh muntaxa ibnul basir yaa leeralaat bi teeki biir yaara yi may mbàkke sa mboor rafet na leeral na xarnu bi mboolem jullit yi déglu leen te ñaan ci yàlla kulla xiin dundam di wéy di wéy ba siin daj fépp fii ci xarnu bi mboolem jullit yi déglu leen te ñaan ci yàlla kulla xiin dundam gi di wéy di wéy ba siin daj fépp ci xarnu bi yaa neexa way sibtul xadim Cheikh Muntaxa amoo moroom ñaanal ci yàlla sa boroom mu may nu ci xarnu bi Cheikh Muntaxa amoo moroom ñaanal ci yàlla sa ñaanal ci yàlla sa boroom mu may nu kun ci xarnu bi yaa neex way sibtil xadiim seex muntaxa amoo moroom ñaanal ci yàlla sa boroom mu may nu kun ci xarnu bi ñaanal ci Tuuba aéroport corniche yi ami saxaar yuy daw di wër di ami gaar di teer fu soob waa xarnu bi ci biir na am ay wataraay di wër ci tuuba ngalawaay na ñëw nan ko fekke waay di sant noog waa xarnu bi ci biir na am ay wataraay di wër ci tuuba ngalawaay waay na ñëw te nan ko fekke waay di waa xarnu bi Seex Muntaxaay boroomi xaas lum ñaan ci yàlla mu ne jaar fasaasa ñëpp ne lii mas am ci xarnu bi Seex Muntaxaay boroomi xaas lum ñaan ci yàlla mu ne jaas fasaasa ñépp ne xalaas lii mas la am ci xarnu bi ci mbàkke balla ñaanal ci mbàkke ñaanal ci Sénégal na xay di dem ñu am alaal gaasake or lii nga dajeel ak pétrole ci xarnu bi ci mbàkke balla ñaanal Sénégal na di dem ñu am alal gaasa ki or di nga dajeel ak pétrole ci xarnu bi lii lépp yaay ki ko jagoo Cheikh Muntaxa yaay ki sagoo nga neel ñi fees na bàyyi ko ci goxi mboolem xarnu bi lu nuy basiiran nasiir cey mbàkke balla yaa doon leer amoo moroom bi teeg biir sa dañ na xarnu bi doluy basiiran wa nasiir cey mbàkke yaa doon leer amoo moroom bi teeg biir sak cant daj xarnu bi Seex Muntaxa yaay boroomi xaas lum ñaan ci yàlla mu jaas fasaasa ñépp ne xalaas lii mës am ci xarnu bi lii lépp yaay ki ko jagoo Cheikh Mountakha yaay ki sagoo ngëneel yi fees na bàyyi ko ci goxi mboolem xarnu bi donuy basiiran wa nasiir cay mbàkke yaaka doon di leer amoo moroom bi teeg biir sak cant dañ na xarnu bi nawet yi yàlla na sedd lool lu nu fi bay na bari lool daj fépp mboolem Sénégal nuy sant nag ci xarnu bi man maa sax di la way man say xitura maa la way ñaanal ma fan wi di wéy di wéy ak suñ njaboot xarnu bi man maa sax ci di la way man am sa dumi maa la way ñaanal ma fan wi di wéy di wéy basiran wa nasir ci mbàkke bal la yaa ka dondi leer amoo morom bi biir sa dañ na xarnu bi donuy basiiran wa nasiir ci mbàkke yaa ka dondi leer amoo morom bi biir sa dañ na xarnu bi nawet yi yàlla na sedd lool lu ñu fi bay na bari lool daj fépp mboolem Sénégal muy sant nag ci xarnu bi man maa ngi sax ci di la way man say xiture maa la way ñaanal ma fan wi di wéy di wéy ak sun njaboot ci xarnu bi ci mbàkke balla yaa ka bari ndam ci mbàkke balla ñaanal xaar Sénégal ba ñépp naan xéewal yi daj ba wala ngaan baawaan di wër waa xarnu bi ci Mbàkke balla na ñaan aar Sénégal ba ñépp naan xéewal yi daj ba wala ngaan baawaan di wër waa xarnu bi yaa mën a boote yaay xaliim yaa xam xàmmee doo moroom mboole murid yi déglu leen mboolem murid ngi yéem lewet gi waar na xarnu mi yaa mën a boote yaay xaliim yaa xam xamee doo moroom mboolem murid ngi yéem lewet gi waar na waa xarnu bi yaa mën boote yaay xaliim yaa xam te xàmmee doo moroom mboolem murid yépp a ngi yem lewet gi waar na waa xarnu bi Cheikh Muntaxa Salah al aadil amiin nan sant yàlla kulla xiin te sant xayril aalamiin ak sun bambam xarnu bi صلاح لنا للأمين ننسنت يلا كل حين تسنت خير العالمين أكسن بامبام خرن بي يلا بروم كن فيكون برم رسمون جخون xaadim borom nga neel yowoon moo dindi xarnu bi seex muntaxa yow yeesalaan nga poroxaan sigil nga jaara poroxaan maam jaara yaa nga poroxaan daaraam jeyem na xarnu bi Seex Muntaxa yow yee salaan nga poroxaan sigil nga jaara poroxaan maam jaara yaa nga poroxaan daaraam jeyem na xarnu bi nan ñaan ibnu basiir Seex Mustafaa Mbàkke yow sa lépp rafet bi teeg biir sa cant waa xarnu bi ñun ñii la way nan amaat ay doom ba dellu jaaruwaat sangub jigéen ñeere yi mboot jariñ nga mboolem xarnu bi cey soxna baali muntaxa mbàkke balla dootoo noppuloo bay faalu maam jaara buso raw nga jigéeni xarnu bi tey soxna baali muntaxa mbakke balla dooto noppuloo bay faalu seex muntaxa maam jaara tim nga jigéeni xarnu bi cey soxna baali muntaxa mbàkke balla dooto noppaloo bay faalu seex muntaxa maam jaara tim nga jigéeni xarnu bi yal la maam jaara dëkkoo yowmal qiyaam fu la juboo firdaw si nan fa xàndandoo ak soppey jaaram xarnu bi cey na ayda badaloo njaay jaata dootoo noppuloo bay faalu maam jaara busoo raw nga jigéeni xarnu bi yal na nu maam jaara yowmal qiyaam fu nu juwoo firdawsi nan fa handandoo ak soppey jaaram xarnu bi nan ñaan ci barke muntaxa ibnul basiinu xalifa bur yàlla may nanu muntaxa mbàkke mutim waa xarnu bi nan ñaan ci barke muntaxa ibnul basiru xalifa bur yàlla may nu muntaxa mbàkke mutim waa xarnu bi seex muntaxa cay mbàkke balla yaa doy rafet nga lislaam rëy may ñaanal nu mbàkke bu nu mooy ndigal ci mboolem xarnu bi seex muntaxa yaa sell diine bari ngor yaa dondu jaara ndey mbër yaa rafetuk taalu bi xër ci yoonu bambam xarnu bi seex muntaxa leerug sëriñ bee nu dugaat moo tax ma dellu jaajuwaat way sunu maam te yeesalaat sun ngëm ci mboolem xarnu bi Seex Muntaxa yal na nu yàlla may ngërëm bëkkul ngërëm nga ami ndam leeral sa biir nga daade am say càkkuteef ci xarnu bi bi jaayi xaadim rasuul ñaanal nu ban xam xay rasuul ñaanal nu bu kenn mën a suul suñ jëf ci mboolem xarnu bi Seex Muntaxa lu ñaan ci yàlla na ne jaas ba ñépp waaru ne xalaas ci Mbàkke Bàlla may nu xaas lu ñaan mu am ci xarnu bi lun ñaan ci yàlla nana jaas ba ñépp waaru ne xalaas cey mbàkke bal may nu xaas lun ñaan mu am ci xarnu bi saraaxalala dil amin bi jaay ahmad alamin na nga nuyil fi kulli xiin ban ami ndam ci xarnu bi mboolem saxaabatu rasuul ak mbër ya daa mel na ne bay nga seeni tool bayaale tooli xarnu bi kaxab da daa tagg rasool buusayri daa tagg rasool xasan da daa tagg rasool semmal nga leen ci xarnu bi كهب دا تقرسون بو سير دا تقرسون حسن دا تقرسول سمال غلين كخرن بي صلاح لنا الأمين بجاي أحمد الأمين nanga nuyir fi kulli hiin ban ami ndam ci xarnu bi addee Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi loolu te wéral ko fi yéeneem ci lislaam ak lëggéeyal sëñ Tuuba ak Cheikh Mouhamadul Basir mu def ko nam ko soobe ci daraje sëñ Tuuba xasaayid yi jërë ngeen jëf